benn waxtu ci bëccëg jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi muy waa initiative 2035 indi ay tontu jébbal ko Idrissa Seck Ousmane Sonko Thierno Alassane Sall ak ñeneen ñi mel ni ñoom te yëkkatoon ay kaddu ay bés yi ñu génn jëmale ko ci njiitum xew bi di le président Macky Sall ñoom nag la ñu fësal mooy ne dara amu ca sàkku it ci yenn ci ay syndicalistes yi njëkk yi nekk jamono ji ci ay yëngu-yëngu ñu doon ay patriotes daan ci dikk yëpp ci xibaar yi caution le président Macky Sall di 65 millions maintenant ci gis-gisu convergence bi ëmb ni di éleveur yi de ay républicains ñom ci sen cadre mooy ni jaay nañ lu tolloo ko juróom benn téeméer ci seen nak jébbal ko njiitum réew mi di le président Macky Sall waye du fësal ni dañ ko fal ci premier tour ci élection présidentielle yu dogmal dañ ci dikkaliñ ci xibaar yi jamono boobee ay ndaw lañu botu ci parti réew mi bi Idrissa Seck ne fas ñu nas seen stratégie ngir fexé seen leader mëna

fukk ak ñeent ci ay euh, poñ doonoon ay revendication waral ba ñu amal ab grève di syndicaliste yi ëmb euh, chauffeuru taxi maan yi nee nañu ñett ci yooyee ñuy sàkk jot nañ ca waral ba ñu xaw a nag teggi seen tànk ci grève bi donte bàyyiwuñu ko sàkku nañu it la bëgg ci fukk ak ñeent poñ yooyee nguur gi euh, taxaw ci daan ci ànd ak leeral du Samb mbokki ponk yaa ngoog topp leen ñu yaatal ko naaw ba ñu leen uh, nuyoo xibaar yi ci digg bëccëg bi dañ koy door rek waa initiative deux mille trente cinq doon jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi indi ay uh, tontu uh, jëmale ko ci kujje gi na rawatina Idrissa Seck Ousmane Sonko Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall mi ñu jàpp ni kàddu yi yëkkati ay bés yu génn jëmale ko ci njiitum xew mi di président Macky Sall ak régime dara amu ca lay dëgg mooy ni ñoom dañoo xamul fu ñuy teg seen tànk jamono ji yemuñu ca sàkku nañ ci syndicaliste ñekk euh, jamono ji ci ay yëngu-yëngu di sàkko ci nguur gi mu daal di xaatim accord yi mu diggee seen digganteeg ñoom la ñu bëgg euh, ci ñoom ñooñee di syndicaliste yi mooy ñu doon ay euh, patriote bañ a yàq réew mi te it la ñuy def ñu teg ko ci li nga xamante ni nguur gi mën na ko leeral yeeg suñu ndaw di Ibrahima Fall. kuréel bi ñuy wooye initiative 2035 am taxawaay bu dëgër ñi ci bokk fas yéene sol mbubbu avocat ngir taxawu njiitu réew mi Macky Sall ñenn ñi nekk ci kujje politique bi te fas lool ñu di leen di artu. bu dee nag lu jëm ci kuréelu soskat yi ak warkat yi te Ousmane Sonko Thierno Alassane Sall ak Abdoul Mbaye gën cee ràññeeku ñu xam ne sosalaate ak parparloo mënta doon programme politique. damay fàttali fii ñi fi nekk di bëgg takk morso bu xonq Nicolas Sarkozy ba mu taxawee fii di saaga Afrique ñu ci bëri ñu ngi toog ko tàccu ci benn salle fii ci Dakar gii. ñooñu bu fekkee ne ñoom ñoo war a mën a tax tey ñu taxaw euh, ki nga xamante ne moom taxaw na ak Barack wax ko li koy wax nga taxaw naan am euh, bu ñu ñëwee dañuy ay morceaux ñoom ay nekk dama yaakaar ne ñooñu dañu am jot ba pare bëri jaaxaan. ñu nekk ci jamono bu grève yi bari lool way politique yi bokk ci nguur gi di ñaax syndicaliste yi ñu gën a xam seen taxawaay ci biir réew mi. I 35 nag ñu ngi ñaax gor yi ak liggéeykat yi ci réew mi. ñu booloo def benn say te wàll si ci njiitu réew mi muy président Macky Sall te làng ak moom ci gën a sukkali koomu réew mi wéyal waxtaan bi yi nga xamante ne moo soxal dëkk bi ngir lal jàmm ci réew mi ndax fitna yorul am réew te doxalu ko plateforme initiative 2035 nous di kuréel bu Sénégal am gis-gis bu rafet ci France Sénégal muy Emmanuel Macron ndax dañu japp ne lolé tax na ci walu concom ak walu ci Sénégal daal dina Ibrahima Fall caution njiitum réew mi di la président Macky Sall mat na ci 65 millions euh, ginnaaw ba ñu jaayee seeni nag toll ci juróom benn téeméer lañu ko ko jagleel di convergence bi ëmb éleveur républicains yi ñoo doxale lu mel ne dañ koy delloo njukkal ngir taxawaay bi am ci wàllu càmm gi ak it na mu dolle yemuñu ca la ñu fësal ni ci élection présidentielle yi daañu fexe ba mayaat njiitum réew mi mandat ci la

Euh, comme ni koy président di waxee déglu ngeen ko lu mu wax Kolda nee na euh, li mu def ci yeneen secteur yi moo ëpp lu mu def ci élevage mais nag éleveur dafa nekk nit koo xam ne aussi loo ko defal moom du ko xeet donc euh, moo tax bu ñu la cëralee pour nga wone ne yow kontaan ala kulli nga joxe nag nag mooy li ñu gën a fonk ci jur gi ñu yor donc nag loolu moo tax ñu dajale loolu pour delloo ko njukkal ci li mu defal vraiment sàmm Sénégal yëpp d'une manière générale bu ñu sukkandikoo ci kàdduy député Alioune Demba Sow sàmmkat yi nag pare nañu ngir tegaat Macky Sall ci bopp nguur gi. ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu càmm foofu jarul beneen candidat wala beneen mbër di fa yàq carburant am wala di fa yàq nelewam wala di fa sonal boppam ndax waat naa ko ne benn sàmm du jël kartam di wooteel beneen candidat bu dul président Macky Sall buñ la ko waxee boo demee bu bu bu duñ la ko sax duñ la ko sax café c'est-à-dire que lépp ko képp koo xam ne daal bu nga yàq sa programme wala wax sa wax demal nga faire une campagne pour mu donc pour élire au premier tour midi wala et a def. ñu taxawal ko ci novembre 2015 euh, ci journée convergence républicaine yi réussir nañu bi ba a caution président de la république bi ci campagne ngir Co Palette, en 2019 Aïda Ndiaye jamono boobee ndaw yu bootu uh, ci ab kuréel bokk ci parti réew mi bu Idrissa Seck nas nañu seeni stratégie yu fas yéene jëmmal ngir ci élection présidentielle yu dëgmal ndam li féete ki si seenu ko leader di Idrissa Seck waaye te ñaawlu kàddu yi Carlou di yëkkati doon dooleel ki di riana uh, ci financement ay ñu doon uh, dajale jëm ci wàllu njàng mekk njàngal mi la ñuy sàkku ci moom mooy na tub kàddu yooyu ñu jàpp ni njaaxum la kii di Mamadou Sidibé moo yore seeni kàddu ñu teewlu ko. ndaje tey bi ndaje information la woon partage. ngook mu mel ni dañoo am ay jafe-jafe jëm ci boobee élément xëy na daan ci dikk yenn laata njeextalu bi la jotaayu xibaar. ñu wax euh, ci leneen euh, muy euh, taximaan yu bootu ci ab kuréel xam nga ne ay bés yu génn ñu ngi doon amal ay yëngu-yëngu la ñu doon sàkk tollu ci fukki poñ ak ñeent mu mel ni jamono ji ñett ca poñ yooyu ju naa saafaraw jëm na ci supprimer li nga xamante ni moo aju ci laissez-passer yi ndax jàpp nañ loole bokk na ci ponk yi leen gënoon a intéressé waral ba ci seen grève boobee sax daanaka dañoo teggi tànk ci mbir yi waaye bàyyiwuñ ko la ñu bëgg mooy nii loolu yëpp ñuy sàkk nguur gi taxaw ci indi ci ay saafara lu ko yeneen ci yeneen i façon yëngu-yëngu du Samb lañ ci àndal. gannaaw doxu ñaxtu biñ doon amal ay bés gi ñu weesu mbootaay gi ëmb dawalkatu taxi yi nekk fii ci réew mi mënees naa wax ni lenn ci seen i jafe-jafe jot nañ ko saafara lu ci mel ni wàllum laissez-passer gi. suñ demee nag ba kayit googu leneen nekk ci day mel ni nekkatul kayit kese moo tax ñu ne nañ ci def taxaw seetlu ñu bañ ne laissez-passer boobu nañ ko supprimer sinon su fekkee ko supprimer nañu fexe ba. fépp foo xamante ne taximan, taximaan dina fa dem ci Sénégal commissariat nekk fa wala gendarmerie nekk fa mu am fa comme ñooñ ñooy suñu kaaraange na fa am au lieu que muy nekk rek commissariat Tëngéej wala commissariat central. yàlla dogal na loolu am nañ ci consensus ak autorité yi bakkan yi léegi euh, euh, direction transport terrestre euh, la ñu jox compétence su laissez-passer léegi moo koy imprimer comme moom am na budget di ko jox. fépp fu police nekk wala fépp fu gendarmerie nekk ci Sénégal. beneen poñ gi bokkoon ci liñ doon laaj. moo di li soxal aéroport international Blaise Diagne moom mi yor kàddu chauffeur yi lii la ci xam xamle. di aéroport boo xam ne àddina bi yëpp ko bokk nun ñu di sénégalais yor suñuy taxi ñu ne la sa frère bu la jëndalee taxi bàyyi la ko fii dem Europe bu ñëwee bu la woowee ne la ñëw naa amul droit dugg ci aéroport pour jël ko loolu fan la nekk fan la fan a ñu bañ loolu. yàlla dogal na loolu saafaraw na fii may waxee yow ni syndicat bi xeex na ko ba képp koo xamante ni bi yaa ngi wàccati ku la neex nga woo taxi ba nga bëgg mu jël si la mu dugg gaare parking à péage bu heure jotee bu heure jotee mu génn dem. ñoom taximaan yi fas yéene wéyandi xeex bi bu fekkee ni amuñu benn saafara ci fukki poñ ak ñeent yi ñuy laaj. bu fekkee waxtaan wi am na ba liñ ci bëgg bu ñu amee genn wàll gi dem liggéey suñ ko amul nag yem ci ay di kese dañuy delluwaat buum ca booy booy ba li ñu bëgg daal mooy police ak gendarmerie ñu comprendre taximaan yi xam ne li ñu nekk seen droit la. bañ leen a bunduxataal benn yoon parce que doo xeex bañ àttale nga wëlbatiku di continuer di xeexaat. xeex mu ne suñu dëkk ki ko ne moo di ki yor kàddu chauffeur yi bu dee ni nag fukk ak ñeenti poñ yu ñuy laaj dara saafaru ci ñoom chauffeur yi li ñu fas yéene moo di fexe wàcc ci terrain bi ci ñaar fukki fan ci weeru mars bi ñu dëgmal. Mamadou Samb ñu dellusiwaat ci maa ngi leen ko doon junj sànq muy ndaw yu bootu ci parti bii di réew mi bu sa Seck na ay stratégie ngir waajal élection présidentielle yi la ñu namm mooy ni ci élection yooyu ndam li féete ci seenuk leader di Idrissa Seck ñaawlu nañu taxawaayu kii di Carlou D mi doon dooleel ki nga xam te mooy Rihanna ci financement ay ñu doon dajale fi ci Ndakaaru jëm ci wàllu njàng mekk njàngale bi la ñu jàpp mooy ni kàddu yooyu mu yëkkati njaaxum la ñu bëgg ci moom mu tuub ko ñu teewlu ci kàddu Mamadou Sidibé ndaje tey bi ndaje information la woon partagé ko ak suñuy suñuy suñuy suñuy moroom góor ak jigéen pour wax leen ni ndaje yi ñu daan daje fi mu doon nekk ay réunion technique pour defar li nga xamante ne nii mooy suñu feuille de bu ñu war a wàccee ci terrain bi ba nga xamante dinañ mën a liggéey ak suñu yeneen i moroom conscientiser leen rassembler leen pour que vraiment ñu waajal élection présidentielle 2019 yi di ñëw pour ñu mën a fal suñu leader le président Idrissa Seck lu Carlo di wax catastrophe la parce que tay ku melni ni Rihanna ñu gis parcours am ñu ko xam ñep ci la scène internationale bi dem musique yaakaar na ni kenn ñaanul yalla sa dong jigen jigéen mel mel mel noonu bu fekke léegi dañ nan xaliss moko amé rek baax lolu mom catastrophe bi nga xam te ni vraiment war na seetaat moom ci boppam limu wax mu demander sax pardon à la population sénégalaise parce que tay yaakaar na ni suñu bëggé xaliss bi tax suñu suñu éducation dox am na fu ñu ko war a mën a jëlee parce que sénégalais yi am nañu ay financiers yu baax am na ay inspecteurs des impôts am nañu ay ñoo xam ne seen xam-xam loolu la ci loolu la jublu donc je pense que tey su ne nañ jël xaalisu leen xaalisam nañ soxla pour ñu kon donc l'argent sale bi Macky Sall doon wax ci début mandat fan lañ koy def mer lañu def euh, jamono ji euh, di euh, professeur yañu ñu doon ci ca FASTEF te ñu génn ci atum 2013 doon sàkku ci nguur gi seeni ordre de mission ngir ñu mëna a wéyal jang ak jangalé ni ki at ba si ñu génn lañu ko doon fësal ci ay ñaxtu ba ñu jàpp ci ñom fanweer war ba ni ki démb ci buntu premature lañ doon ñaawlu lu ni mel ñaar lañ doon sàkku bokk na ci ñu bayyi seeni natanga yoy ñu tek lox waye ñu jébbal leen ordre de mission ngir ñu mëna a wéyal seen njàng ak jàngale ci kanam suñu ndaw di Abdoulaye Ndiaye. Ndiaw nag mi ngi dese ñoo xam ba tey ci jàngalekat yi nga xam nag jóge nañ ci FASTEF ñoom nag yàgg lool ñuy laaj li nga xam te moo di seeni i ordre de mission sitting bi ñu doon amal ni ki tey nag ci mankaan jëwriñ ji njëkk ji ci lañ leen rek ndar kappe fanweer ci ñoom loole nag nekk lu leen metti lool. waaw tey dañoo jógoon doon def benn point de presse ci primature bi. léegi euh, benn sitting ci primature bi ci la ñu alkaati yi fekkee foofu nañ lañu fa jógee mais tamit ñu woon jóge foofu sans suñu li ñu bëggoon a wax léegi ci lañ jëlee yenn si suñuy naataangoo si suñuy collègue lu tool ci fanweer ñu indi leen fii ci commissariat bu plateau boobu ba léegi nag ñu ngi toog di leen xaar déggaguñu gisaguñu jàpp nañ leen waxuñu nañ leen bàyyi waxuñu dunañ leen bàyyi mais lenn lañ doon xeex mooy loo xamante ne ñun ñoo ko moom suñu ak ak suñu yelleef la euh, yelwaanuñu ñaanuñu loo xamante ne si ñun ñoo ko moom suñuy OS suñuy ordre de service dañoo jóge ci école bi gën a kawe école normale. ñoom ñi sax dañuy génn ci atum 2013 ngir jàngale waaye boobaak léegi nag ñu daal leen di rek tànqaam lu dëmërit nag seen ñooñ yi nga xam nag ñoom la ñu jàpp liñ ci yittewoo mooy ñuy bàyyi leen ci nu mu gën a gaawee. am suñuy diplôme pour dem jàngale ji ñu toog juróomi at yoo xamante ne sii léttu ñu firiw ñu jël su ñenn suñuy naataang suñuy collègues yi ñu affecté leen am ñoo xamante ne si nga bàyyi leen loolu du loo xamante ne dafa di yoon booy def da ngay yemale ñëpp leen libéré wala ñu jël ñu ñun ñëpp ñu yóbbu ñu. instant bi loolu mooy suñu combat ñu libéré suñu xarit yi wala ñun ñëpp ñu jot ñu yóbbu ñu. mu nekk nag loo xamante ni sax ñoom ci seen i kàddu jot nañoo am euh, autorisation maanaam sañ-sañ ngir nag amuk ñaxtu ci mankaanu jëwriñ ji njëkk ji ñoom nag jamono ji nar nañoo nag dabbaliwaat dellu buum ca mboy mboy ga bu fekkee rek amul benn pour rek saafara bu am ci seen jafe-jafe bi Abdoulaye Diaye nee nañu ni mer euh, ba foot muy euh, mouvement France dégage mu melni ni la leen mer na ci kii di ko nubuk po nekkon ci organisation internationale bu francophonie te ñu dàq ko ay bés ñu genn ñom nak lañu japp moy ni ko gis-gisam bi mu am utewul ben yoon ak ñom gis-gis ñu am waral ba ñu teggi ko ci bop boobe te lolé ca lañu ko tek doonut yoon ni ci ñu ko ñu te japp nañu yëngu-yëngu yuy faral di amal ci 4 avril loole la muy mandargal mooy ni ba léegi euh, France la ñu dénk suñu mbir moo ñuy diri di ñu yóbbu fu mu leen neexee mu mel ni bu jaam googe ñuy junj ci seen i kàddu la ñu bëgg mu dakk wara ba ñu fas seen i wéel seen yëngu-yëngu ngir ni àdd yëpp na leen déglu rawatina ñu dëkk ci réew mi ngir ni la ñuy xeex ñu fexe ba ñoom ñëpp soobu ci ne intéret askan wi euh, lay euh, doon leeral suñu ndaw di Abi Gueye Sénégal ba tey colonie bu France la feetu indépendance am nag lajjite la boo xamante ne daf si war a sukkandiku ngir jógaat muy ay kàddu yu mouvement France de gage moom nag mu jàpp ne yëngu-yëngu yi ñuy amal 4 avril dañ ko war a dakkal. moomuñu suñu bopp ci lenn moomuñu suñu xaalis moomuñu amuñu benn ndogal ci suñu dara bu suñu ay ressources naturelles bu si suñu jàngale. du ci lenn domaine boo laal rek am na fu ñu fa nootee ñun Sénégal ñun Afrique ñu ne taxaw di wax indépendance ba di ko xeetu defe naa ne du xalaat boo moomu sa bopp encore dépendant mouvement bi di ñaawlu tamit aj bi ñu aj kakoo nu bëgg ca OIF ñu jàpp ne dàkk bu teguwul ci yoon la Au mois de décembre 2017, il y a eu euh, un samedi de l'économie où nous avons encore parlé du franc CFA et les participants à cette conférence ont fait une motion particulière sur la situation de Kakomobokpo. Et pour tous ceux qui étaient présents dans cette conférence-là, qui ont endossé la motion de soutien à Kakomobokpo et d'indignation devant l'attitude inacceptable des sous-préfets de la France, parce qu'on sait de sources sûres que Ouattara et Macky Sall ont beaucoup pesé dans cette décision là Tous ceux qui ont endossé cette motion de soutien, pour eux, c'était très clair, c'était un limogeage. mouvement France dégage nak di ñaawlu ci anam yi mu gëna a nekkin bi yenn ci seeni nekké won ci commissariat central Guy Marius Sagna ak i àndandoowam di féddaliwaat seeni kàddu jëm ci dal bi ñu nara dal ci arrêté jëwrin ba won di Ousmane Ngom ñu japp né day xex seen yelleef mbokk ñu koy jaajëfal moom Abi Gueye ñu wax ci procès bu Khalifa Sall xam ngeen ni ubbiwaan nañ ko niki altine bi ñu dëgmal jëm ci gën a liñ li nga xam ne mooy dossier bi ca biir waral ba niki démb ak tey daanaka kii di euh, Khalifa Sall ñu ngi ko doon déglu ci baar bi ca la koy euh, tuumal ak kàddu yu mu ca yëkkati jëm ca ñamuy liggéeyandool ak lañ koy tuumal mu mel ni bëri na lu ca yees ci boobu dossier ci sukkandiku ci ay kàddu moom Khalifa Sall noonu la ñuy def jaw ca fa ñu koy atte suñu ndaw di Codé Ndiaye di ñu ko toppal ay bés yu génn Codé ginnaaw bu ma la nuyoo ñu bëggoon rek nga wax ñu ndax am na lenn lu yees ci dossier boobee bi xalifa Sall ci tey jëm ci àtte bi. ah jërëjëf Pape Ousmane euh, maa ngi lay yow itam. Euh, di wax ne ñu ngi fii tey ci parmi bu Dakar comme ni ñu ko defee fan yii yëpp euh, interrogatoire yi ñu ngi wéy ci mbirum euh, caisse d'avance bi wala wax ay fonds politique tey nag interrogatoire yi ñu ngi wéy fi ñu déglu ci baar bi ba moom mooy Khalifa Sall Mbaye Touré Oumar Bokum waaye itam Ibrahima Touré ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon percepteurs yi tey nag Pape Ousmane hmm. interrogatoire bu Khalifa moom lañ ñëw njëkk a ci suba si wàllu neuf jàpp dix heures ñu si doon ñu mel di procureur de la république jàkkaarloo ak ki fi nekk ci maire bu Dakar di Khalifa Sall nekk maire bu Dakar ah ci ci laajee tontu yi nag bokk na ci laaj bi nga xamante ne démb sax ñëwoon na mooy xam nga ne démb Mbaye Touré dafa ay kàddu. Hmm. wax ne daal ne euh, kii di percepteur bi di Omar Bokum daan na jox xaalis directement ci maire bu Dakar. loolu nag procureur bu ñu jëlee kaddu tey dafa laaj Khalifa Sall est-ce que dafay dëggal kaddu yooyu am déet hmm. waaye xam nga Khalifa Khalifa Sall démb bi ñu ko woowee ci baar bi ngeen mu àddu ci loolu dafa ne moom xaru moo ko gënal hmm. muy wax kaddu yooyu dëggalam déet muy àddu ci diggante Mbaye Touré ak Oumar Bokum kan moo ci am dëgg loolu kaddu yooyu la biral tey bu ñëwee ci baar bi dafa ne dafa wax ne daal foofu laaj boobu moom mënu cee toll hmm. alors kii di euh, Mbaye Touré également ñëw na ci baar bi ñu laaj ko li nga xamante ne moom mooy euh, fonds yi ni ñu

tey nag mu nekk nii Khalifa Sall moom mooy jàkkaarloo ak eh, avocat nguur gi muy hmm. parti civil bi laataa loolu nag Pape Ousmane ñi xam hmm. ne ne am na yenn joxante yi ay cadeau yu yu amoon diggante procureur bi ak Khalifa Sall parce que xam nga ne démb Sall dafa waxoon ne kenn ci ñoom muy bokk ci prévenu yi dafa ne woon moom xamul lu ko andi kaso parce que li li ko andi kaso mooy lim naan def depuis 2002 maanaam 15 ans. Hmm. loolu nag euh, procureur jàpp ne euh, dafay décharger responsable bi ci maire bi. Hmm. Euh, Khalifa Sall loolu daa xaw ko métti lool. Hmm. mu ne nag procureur bi daal di wax ne est ce que fekkul ne responsable bi parce que dama bëgg su ma defee sama réquisitoire ma daal di tëdd nelaw. Khalifa Sall ne ko kon dafa mel ni kon yow da am problème. consul mm. euh, tontu ko rek ci am problème daal moom mooy ki nga xamante ni dafa luubal alal réew mi ko mm. amoon ay doxare bi salle bi xaw a yëngu mm. dina man exemple daal di andi euh, euh, calme ak sérénité ci salle bi ñu weer projet bi su mu toll ci sembe nag Khalifa Sall moom mooy tontu ci laaj bi nga xamante ni particulier ñi ko koy laaj muy mel njëriñ jàpp bokk ci avocat nguur gi Khalifa Sall mi ngi tontu ci question yi nga xamante ni mi ngi ko koy bokk na ci question yooyu ndax thèse bi fond politique la wala thèse d'avance la waaye Khalifa Sall li mu xam ne moom mooy compagnie la gérer mosul gérer caisse d'avance parce que tout simplement réglementation bi caisse d'avance laaj euh, doxal doxewul noonu ci mairie bu Ndakaaru loolu daal mën lañ mën a jàpp pour l'instant mm-hmm. ci procès bi en attendant la suite des débats euh, mi ngi wéy euh, ci a fond dossier bi Pape Ousmane mu nga ko ñu koy euh, jaajëfal moom euh, de Ndiaye nekk jamono ji ca palais de justice bu Ndakaaru doon ñu toppal li nga xamante ne moo aju ci procès bu Khalifa Ababacar Sall jàppaleen ni ci la mu doon addu bokk na ci niki tey mu ngi ci baax bi moom xalifa Ababacar Sall war a jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni avocat wu parti civil bi ci ay laaj ki tontu euh, jëm ci mbirum caisse d'avance wala fonds politique lu ci mënti am dinañ ci dikk ak yéen nu mu gën a yaatoo sunu xibaar yi ngoon yi lay doon ànd leeral suñu ndaw di Codé Ndiaye ñu wéyal rek yi xam ngeen ko mu ngi aju ci euh, brigade mixte gendarmerie bu Diamniadio euh, teg loxo juróom ci ay Samba Boy kenn ci ñoom nag da doon euh, fësal ni ab agent la de circulation diggante yoonu mbuur bi waral ba ci ay enquête ñu mujj leen teg loxo ñoom sax dañu doon jiiñ ci ab plainte bu ñu déposé woon ni dañu doon amal ay cambriolage ak yu mel ni moom waral ba enquête ba mujj naa mujj fësal ni ñoom laale nañu ci suñu ndaw di Mariam Biram ba Badiop moo ñooy tegtal ak lu ni mel ànd ceeg euh, ñi jiite brigade gendarmerie bu Diamniadio ci juróom-ñaar ak kenn ci ñoom doon mbubboo woon ni gendarme la li ko feeñal di rek benn taximan. benn taximan moo ñëw ni ne ah gis naa benn nit boo xam ni ngi sol tenue gendarmerie di contrôler mais daan wóolu ma ko. noonu la lañ jël daa jël si fekki euh, seet yi nit ka si boo booru mbuur route mbuur bi bi nu fa eggsee bu mu gisee suñu oto rek dafa daw mais nañu topp ko daal koy jàpp bu ñu sukkandikoo ci kilifa gi lee bi ñu ko jàppee fekk nañ ci moom ay bagages yi nga xam ni ay gendarme rek ko war a yor loolu nag firndeel ni moom daana sàcc si caserne yi ban fa jógee wax na ni aussi sàcc na tamu fishing sa sàcc na olaam ak yeneen nit yoo xam ne sàcc na leen ban ko ne ana yëf yi lu mu def collaboré na ne yóbbu nañu Colobane man ba jàpp fa juróom benn nit euh, biir Colobane si marché ba ñoo xam ne dañu leen jëf leen jaay euh, bagage yi mu sàccoon ci fàttali ci bës yi ñu génn jàpp nañ fi benn waay bu doon mbubboo ni douanier la li ni mel nag tax takk der yi di ñaan askan wi ñu jàppale leen ci seen liggéey gannaaw ni bu ñu gisee lenn lu leen jaaxal lépp ngir aar askan wi ñu euh, jëm euh, ca Ambour euh, di ab église bu yees fa samp lu ni mel bégloo kilifa yu ŋànk jàngu bi fësal fa ay ci Sénégal ba ci fitna yuñ ca ñu fexe ba loolee dañ ci xew ci ki nga monseigneur Benjamin Ndiaye boobu église ci seen gis-gis taxawal di waa FH di

FH Sénégal. Ah, liggéey bu rëy la liggéey bu mag bo xamanteni ni bii Sénégal moko ko def tabax fi église bo xamanteni ni day am solo lol ci askan yi nga xam ñoo fi yeewoo ci gox bu ni mel. li dafa bokk ci sunu liggéey manam sunu ceexloon ndax entreprise bo gis dafa am lu ko war diggante mag askan wi li Ben ponk la bu def ci nak liggéey bi dana am solo lol ci daañu ko wéyal am dana ci gox yi mel daanaka ndar bu ngeen xolé am na lu fa yéene participer à la réhabilitation de la maison de la radio ingénieur bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu géotechnique ak tabaxu église boobu kat xam na ci technique moom ay nañ ko waaw liggéey bi day techniquement lu am solo la maanaam dañoo jëfandikoo euh, jëntukaayu xarala yu mujj yi yees yi nga xamante ni bi mooy tax ba tabax booy def boo ko jëfandikoo nga am euh, liggéey bu ci yoon fi ne booy xool bâtiment bi ngay seen fondation bi xóot na lool lool lool lañ ci bëgg rek mooy mu dëgër taxaw waaye itam bu ngeen xoolee jëm bâtiment bi euh, fooy tool da koy gis cay day wane taar wane taar loolu kon techniquement liggéey bu am solo lañ ci def Monseigneur Benjamin Ndiaye bi archevêque de Dakar mon mo taxawu mess bu bi nga xamné mom lañ doon amal ci biir église ci kanamu mbolo mu Monseigneur Benjamin Ndiaye ñaan bu baax ngir nit ñi am prospérité am rawatina Sénégal am jamm jamm sax

ki nga xam te ne moo suñu ndaw di El Hadj Moussa Bey ma nga fa woon. Thierno Ibrahima Niang Adams Hamadou Lamit Sam El Hadj Malay Ndoye Djibril Thiam Mohamed Faye Eliéfort ci ab tënk fukk ak ñaari basketteur lañu ñu jàpp ñu nar a jongante ci compétition bi li nga xam ne soxal na rek phase éliminatoire mondial 2019 seen tànneef nag ñu ngi ko tënk ci ay critères ak it choix tactique. yaakaar naa ne joueurs yi ay professionnels la yoo xam ne suñu toogee waxtaan xool li ñu def ñoom ñëpp mentalement dañ pare pour défendre seen équipe bu baax dañuy continuer dañuy continuer ci loolu et puis après plus tard la gën a am temps pour liggéey ak ñoom par rapport à suñu option quoi. ñenn ci gaynde yi ku ci mel ni Maurice nduur ak góor gi Dieng ñoom bokkuñu ci groupe bi. kaw bu ñu kaw góor gi wu Maurice Ndour ou Cheikh Mbodj ça va am na am na y a am na choix sportif mais euh, FIBA permettre leen ñu di jouer NBA wala di jouer Euroleague di def fenêtre yi. gannaaw ñàkku teeb ñi leen nag équipe baa ngi dunde yaakaar ngir rek def résultat yu war ca Maputo coach bi yamu ci mu ngi xaarandi ay moyen yu mucc ayib ngir rek mën a matal waree fam conditions yi ñu ñu teg ku ñuy liggéey mu nekk condition yu baax pour que ñu mën a egg ci résultat yi nga xam ne moom la ñëpp di xaar. fexe rek ba équipe bi mën a qualifié coupe du monde basket 2019 di sas bi nga xam ne moom la ñu teg coach Abdourahmane Ndiaye Sénégal nag dina door matcham bu njëkk mook Mozambique ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février ñaari équipe yi nag nekk pool D bu ñu bokk ak Côte d'Ivoire ak Centrafrique. El Hadj Moussa Gueye euh, ñu wax euh, ci leneen mu aju ci euh, gëstu ñu amal jëm ci gox goxaat yi moo ñu yóbbu ñu ki tey ca Fandène digganteem ak Thiès juróom-ñaari kilomètre la lu tollook ñeent fukk ci ay village ñoo fa ne askanoo fa nekk ci seen i activité jëm ci wàllu commerce ak mbay mi am nañu ay jafe-jafe bokk na ci coowal suuf ak yeneen yu wàllu lu aju ci mbirum infrastructure bëgg na kilifa yi taxu ci indi ci ay saafara Fandène ñu ci ëpp ci ay kilifa dañ koy faral di dem sàkku ay ñaan ak aju suñu ndaw liñ ci àndal di jibi saa jooni acte trois ou décentralisation bi communauté rurale yu ci bëri nekk nañu jamono ci ay commune bile gox nek ci juróom-ñaari kilomètres ci région bu Thiès bokk na ci communauté rurale yi nga xamante ni nek nañu jamono ci ay commune fandine di ab village bo xamante ni danaka ñepp ay chrétien lañ ak i séeréer di li tax sax ba ñu tuddee ko Fandène Fandène bu Padé la woon Padé moy boy jëlee pan moy euh, séddale

dirigeant askan wi yewo ci diwanu fanden ñom ñu ngi xamle ni seen gox bi bile ñu siiw ñu bari dañ ci faral di ñew lolé mën na tax bañu wax ne seen gox bi bile ay boot yu bari la am. xam nga aada maam ci tubaab dañu né ay ay ay ay vit ñu on a des même de bois sacré on a euh dëkk bu nek amna amna amna ay tiem ay ay ay touram da ci waa surtout tout dañ tout dañ ci gëna yëkëti moy mooy que dañ koy ci yu gëna a ci côté positif manam def ñu baax garabu ron di lu am solo ci diwanu fanden jigéen ñi nak mom lañuy jël diko jëfëndiko ngir am lu ñuy suturloo garabu ron mom def na ne moy ressource principale ci bir fanden ndaxte ci ron la ñuy amee suñu néeg mooy toiture ah, jigéen ñi fii ñu ngi liggéey ci ron bi ñu ngi ràbb ay pañe ñu ngi ràbb ay bal ci Fandène bëri ci borom kër yi nag dañuy yëngatu ci wàllum mbay ñun on est des paysans ñun ay agriculteurs lañu mbay ci mbay lañu xam ci moom la ñuy yendu ci la moom moom la ñuy fanaan amuñu benn euh, salaire wala yooyu ñun daal mbéy rek bu nawet jotee ñu ngi ci tool yi bu naar jotee ñu ngi ci ci xur wala ñu def ci fanaan yi. comme daanaka nag dëkk yi xaw a sori yëpp ci réew mi Fandène bëri na ay jafe-jafe yu askan wi di dund. li koy waral bokk na ci gox bi. amul yi meññeef yu bëri. koom bi taxu koo demee noonu.